bàyyiwuñu kenn ndax taxawaay gi ngeen am diggante alxamis ba tey jii ci nemmeeku ak yittewoo di jëm ci sama wér bu yaram ñu ngi leen ciy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm kenn ku ne fi nga toog di inquiété di ñaan di julli di saraxe di gërëm ñi woote ak ñi yónnee message waaye di gërëm it ñi nga xam ne bàyyi nañu seen yitte déplacé wu ñëw ba fii donte jotuñu maa gis muy ay kuréelu politique muy ay kilifa diine muy ay citoyen lambda yéen ñëpp ñu leen di gërëm di gërëm militants yi ak sympathisants yi mouvement citoyen organisation de société civile yi ku lim jum rek waaye yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm wax ni nak am nañu tan bu baax alhamdullilah ndax li ñu mën tay ji ba fasiyene yéene waxtaan ak yéen ci lu gatt ay fan ci gannaaw ñu ko won di gërëm personnel médical bi mbolem sen ñi liggéey ci walu santé ñi nga xamné depuis infirmières yi infirmiers yi docteurs yi ba professeurs yi nga xam ne ñoom ñëpp awante nañu fii ñëw sëgg ci sama kaw daal di def seen liggéey ba ma am tan gi ma am tey ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant bu baax di wax nag ni li xew ñëpp ko gisandoo umpul kenn ndax lu ne fàng la ndax foofu la nguur Macky Sall toll mooy seeni njombe ak seeni ñaawteef bu njëkk ba daan nañu nëbatu di ko def waaye léegi nëbatootuñu loolu nag day firndeel nguur gu jaaxle nguur gu nërmelu nguur gu xamatul fu mu jëm daa si dellu si bu si kanamee li xew keroog yéen ñépp gis ngeen ko mooy jaay doole yi nga xam ne moom la Macky Sall ak nguuram nekkee te mënuñu koo def lu dul ñu ngi sukkandiku ci jumtukaay yi nga xam ne yéen askan wi yéen leen ko jox ngiree ñu wàññi jafe-jafe sénégalais yi ngiree ñu assurer kaaraange sénégalais yi ngiree ñu fexe ba nit ñi am xëy am xel mu dal waaye ñu dajale doole googu yépp daat koy orienté ci nu ñuy def rek ba faagaagal képp kuy opposant ak képp koo xam ne nee nga bokk ma gis-gis ak ñoom mu mel ni li ci ëpp nag ñu ngi ko juble ci sama jëmm ji te loolu li ko waral yéen ñépp xam ngeen ko Sénégal yépp xam nañ ni bu woon police ak gendarmerie parti kese Macky xam ne ni ñoo këpp doole foofu ci réew mi li xew keroog ñépp ko gisandoo mooy ne forcé Ousmane ko dina dem tribunal ci jamono joo xam ne amul benn loi ci dëkk bi du constitution du loi boo xam ne nee na ci genre dossier bi farata la ci man ma teew tribunal bu ma sooboon sax ma ne dew ma tribunal du tee procès ba am juge bi até num ko nu ko li wax jugement par défaut kon amul lenn lu mëna justifier ci dossier bo xamné correctionnel la nga né forcé rek dina wañ loxo nit yóbbu ko tribunal ba tax nga toj otoom ba tax nga gañ ko li gëna nga jël produit bo xamné ne xam ni produit toxique la moy produit bo xamné lu mëna gañ nit la lu mëna def jombe yu bari la ci wérgu yaramu nit jàkkaarloog moom pomp ko ko ci kanam ci bët noqiloo ko ko te problème boobu mën a am lu bëri lu mu yàq ci wérgu yaramu nit kooku jamono ji ñu tollu tembe xamaguñu produit boobu lu mu doon yónnee nañu li nga xam ne moo nekkoon ci suñuy kaw yére bitim réew pour ñu def analyse yi ndax fii lañ ko bëggoon defee waaye nee nañ ñu laboratoire yi nekk fii amuñu jumtukaay yi pour defee ko fii ci senegal ñoo ngi xaar résultat yi am na loo xam ne lu nit yi liggéey ci santé am na lu ñu njort ni lool la ci benn produit boo xam ne euh, agent anti émeute la yu ñuy utiliser ci yu mel noonu bu dee boobu la am na lu bëri lu mun a def ci santé ci lu war jëm ci mbirum bët ci dem li ci mbirum noqi ak poumon ci dem ci ci li dem ci wàllu xol ak ci li dem ci wàllu biir moo tax keroog biñ ma ko defee ca saasa de métti woon na lool ci bët yi ak ci not bi waaye bi ñu eggee kër gi ci ngoon leneen ak leneen yokk na ci amoon nañu ay douleur ci biir bi amoon nañu yeneen ak yeneen douleur ba tax ñu ne faw rek ñu dem hôpital ñu xool ñu waye senegal yeb gis nañ ni bi ambulance jógee fi di dem dañoo lank ni ambulance bi du yexi sama kër il a fallu que samay avocat sen bop ñew dugg ci bir avocat euh, ambulance bi and ak ambulance pour ambulance mu nekk sama kër motax mané tentative d'assassinat la moy pexé la pour fat suñu bakkan du pexé bu jitu te gëmm dina doon pexé bu mujju ngi ndax dugg VIP People TV, VIP People TV, le site des grands événements partout à travers le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Pour vos pips et reportages, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 77 106 85 24. VIP People Dal, vous les